roi des arènes la waaye roi des arènes bu gën a la tamit moom instant yi fu mu toll nii gars ko bu baax a baax di leen fàttali ne suba la def face à la presse am waaye du ko defee Dakar je crois que moom village am koy defee donc information boobu joxewoon nañ ko je crois bien que en plus tamit c'est donc ak en tout cas daal fu mu mënti doon Sénégal dégg nga dem fekk fekk fa waa fekk fa parce que waaw Papa Sow Siteu Papa Sow Modou Lo gis ngeen ñoom ñaar ñoo nar a contact ñoom ñaar gis ngeen ñaar seen taxawaay ah li seen combat la way fàttali ndeysaan ni daa bëgg a dugaat si làmb ji ki mu laaj muy Modou Anta ko super jamono mbaadu italien yi ñoo lay jàpp wala ngaa commencé détourné contact gis ngeen xam ne Modou Lo ak kii voilà kii di Modou Lo ak kii di ngeen ñoo ngi contact ñoom ñaar ñoom ñaar ngi contact Galo maa ngi lay nuyu ki ma toogal mooy seen Demba Thiali seen wala seen Cukri Mbergaan Mbergaan Sere Sere Njaay Njaay seen Cukri Mbergaan bokkul bas seeni bokkul moom seen Cukri Mbergaan la bokk boo xoolee mm, euh, Papa Sow seen est que gis nga par rapport Papa Sow euh, jamono ji ñuy tase moom si signature yi ak par rapport bi ak ak ak ak per bi bi ñuy fubal seen marché yi 100 pour cent Guédiawaye 100 pour cent parcelle bi papa poids bi mu yoroon bëriwu toon mais jamono ji papa xaw na yokk poids diggante moom ak Siteu nag ñaanal. Ah, ah, ah, gis nga xoolal poids li mu def. xoolal lii non loolu muy nem la. lii nii dee du ko daan dee du ko ci daan Modou Lo. am na seen ko pour doole ba mu eggee fu mu daanu ko. lii lii daanu Modou Lo. li daan daanul Modou li daan li daan Modou Lo xayal lañu xayal lañu rek ñu jël ko waaw kay gis ngeen tey lii waaye li daanu Modou Lo li daanu ko daanu ko ay ndax leen waa des arènes lamb jaa ngi fi xool ko fii daanu ko maa ngi koy seen daanu ko li daanu ko li daanu li daanu ko daanu ko waaw daanu ko ah, li daanu Papa Sow mais lii mu bëre Modou Lo tamit di ko bëre Siteu Modou Lo am na lu mu koy wax suuf mbaa xam ngeen loolu Modou Lo am na lu mu koy wax si suuf ma ne la lii mu contact Modou Lo di ko contact ak Siteu de combat bu amee bu amee 3 minutes mu jeex. combat poussé rek. ah. dañuy yàq programme. Eh, déedéet saagawuma dañuy yàq programme. seen. baax na aca moo ngi noonu. gis ngeen na Modou Lo ak kii di Paaso fu mu toll nii ñu si contact bi ñoom ñaar na mun na leen. lii ma war a deux deux cent pour cent parcelle libaas toogal libaas presse baa sa ginnaaw <laughs> jërëjëf libaas tëddal tëbul jógagum léegi <laughs> aca waay waay xoolal lii xoolal lii waaye lii daanu Modou Lo lii daanu Modou Lo Eumeu Sène defoon na ko borom sac puusal <laughs> kawamaan sëgal cey xoolal lii rek koo gis xam ne fu mu toll nii poisson physiquement pay la eh, eh, eh. rapidité <laughs> borom sac <laughs> jërëjëf amul problème. acca amul problème waaw waaw da woon sukk. cameraman da ngay sukk xoolal ma lii xoolal ma wër ndomb bi waaw soo ku ko gis xam ne fu mu toll nii rapidité bi ñu doon wax si moom yëpp tey jii ku gis li muy contact nga xam ne am na ko. physiquement boo ko gisee ci bi nga xam ne fu mu toll nii pare na ñu doon wax naan Papa Sow keroog mu ko gisee match boo xam ne amoon na fële si passé su keroog abu moo ko doon wax sànq abu moo ko doon wax mën nañ jàpp ni yokk na poids Papa Sow xoolal lii xoola du dem wallaay wallaay aa ay xool wul li waay aa lu gars yi namoon gars yi dañoo nam dañoo nam roi des arènes waaw Balla Diouf super na wallaay oh <laughs> nii di bi ñu yëkkati ay kàddu laaj ko mu tontuñu ñu ñu xool maintenant mu toll nii dictature wax delloo ko waaye la six incha allah wax ji jeex jëf moo fay am ñoom Modou Lo ñoom Balla Diouf coach yeeg ñëpp ay